mbokk yi jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm bu baax a baax it ci ni ngeen àndee ak euh, rajo Futur Media ci ni ngeen di teewloo xalaas mu di suñu journal fait divers fii ci RFM lundi ba vendredi ñu ci ànd ak euh, Aba Nosras di ci ànd ak euh, passe partout tey jii nag Aba nekk ci yeneen yitte yoo xamante ne ji day faratalu ñor ba tax na du ngeen ko mën a ngeen mën a ànd ak moom ci ci ci ci ci émission xalaas waaye maa ngi ak sama waa ji passe maa ngi lay nuyu bu baax a maa ngi lay nuyu Ndiaye la ziar bu di nuyu nuyu sénégalais yi di nuyu yi ak internet di jaar ñëpp ñu déglu ci waxtu yi ak fépp fu ñuy dégloo di ñaanal jàmm baa am jàmm rek ñaanal partenaires yi ñuy gunge ci xalaas mu di sponsor émission xalaas jaana leen jàmm bu baax a baax bokk ci ñoom Optic Vision Plus Sénégal jamono ji dañoo nekk ci ñaari promotion muy promotion fête fin d'année nekk ci promotion spéciale coupe du monde Qatar ci naka ay réduction yu leen di xaar ci boutique Optic Plus Sénégal yi muy étudiants yi muy retraités yi muy lunette euh, fashion yi muy euh, accessoire lunette yi lépp lu ngeen fa jënd ay euh, article original garantie moo am ci Optique Vision Plus Sénégal ci wàllu lunette mais également dañu nekk ci promotion seeni boutique showroom bi mi ngi ci VDN bi dend ak hypermarché exclusive ñu am boutique Kër Mbay Fall am boutique Mbour Touba ak fi nga xam ne moo di Louga ak saint Optique Vision Plus Sénégal seen numéro téléphone 33 821 54 57 3 821 54 57 mooy Optic Vision Plus Sénégal partenaire beneen bu ñuy àndal ci xalaas waa réew mi di leen gërëm ndax yu baax yi nga xamante ne ji moom leen leen indil moo di établissement waa kër Serigne Fallou buñ ko waxee xel day dem ci produit bu yéeme bu doy waar bu baax bu garanti bi nga xam ne moo di dragon dragon am cuuraayu bant dragon am pompe bu lay tàggale ak ay mbóot ay weñ naka noonu ak ay yoo mais également dañu am frotté bu efficace frotté bu baax ci yaram buy metti muscule yu xaw a deng deng ay yaram buy metti wala bu fekkee da nga bëgg a jàpp euh, forme utiliser le frotté dragon ñu indi leen ko nag ci format yu bari te bokkul am na pompe bi am na tube bi am na bombe bi ñi ko fi indi di établissement waa kër Serigne Fallou nekk ci jardin waagu ñaay seen numéro téléphone 77 la 276 93 14 77 276 93 14 wala 77 513 69 61 la daal nii d'après yow ndogal sama waa ji fa nekk di. mais instant bii nii euh, maanaam partenaire bu ñu àndal di leen gërëm bu baax a baax moo di. Mion Mion mooy euh, téléphone Android bi lëmbee jamono. def ay preuve am fépp nag ci àdduna bi ñëw fii ci Sénégal di wane boppam ndax téléphone Android la yoo xamante ne ji bu gën a yomb sa morom nga ne bii la bu gën a baax sa morom nga ne bii la lu ci mel ni Q11 bi nga xam ne 23000 kese lay jar di 4G Android 10 5.5 pouces mémoire 8 virgule 8 giga kon batterie 2800 mAh batterie bu mën a yàgg ba noppi téléphone bi ñaari carte SIM lay jël bu la neexee def ci sa ñaari puce empreinte digitale moo koy tijji wala Face ID ne wax naa leen ko 23000 lay jar te boobu Euh, li ci nekk lu ko raw moo nekk ci Q10 bi nga xam ne moom it 23000 la ñu koy jaay am beneen téléphone Mion bu yéeme bu ñu naan L13 plus moom 35000 lay jar nga téléphone Mion yi wala tablette Mion yi revendeur téléphone bu ngeen dem ci réew mi laaj leen ko ko am na garantie un an muy 12 mois ak service après vente bu nekk Grand Yoff boo xam ne li ko fi bàyyi mooy lu leen jaaxal ci téléphone Mion wala tablette Mion bu ngeen fa demee ñu réglé leen ko ñi mooy partenaires yi ñuy gunge ci xalaas Mion la euh, gamme Dragon ak Optic Vision. plus Sénégal ma dellu ci sama waa ji passe partout passe maa ngi leen nuyuwaat. jaajëf waay Ndiaye. ay ñuy tàmbale. am ay xalaas express de. Ndiaye lan la ñuy wax ci ku bokk ci gétt gi. naan ci meew bi. ok sama soxna téléphone am dafa réer. <laughs> waaw. <laughs> dafa demoon dafa demoon fa da caajaay. téléphone bi war ci oto. jaay mhm. mhm. benn iPhone X la. ku ko for daal nga xam ni téléphone soxnaas. passe passe partout la iPhone X. la iPhone X waaw yow eh, passe de yow sa jabar iPhone X la yor. ah ah allah. Ndiaye <laughs> daa bëgg ma wax. looy wax. ma wax ban téléphone la Kumba yore. moom yorul téléphone sax déjà pour commencer. ak ban wata la yore. <laughs> yorul téléphone yorul oto. ak ban kër la yore. nekk. fi daal yaa feeñ la. Ah, baax iPhone X nu mel. iPhone X nu mel parce que la. Ah, benn iPhone X bu weex la Ndiaye. Hmm. Ah, écran bi nu mel écran bi lu ca nekk écran boo taalee looy gis. man ak moom. waa ah, yéen a ca nekk. waaw problème am na nag ndax xamul noo mel. loolay am am di cuuraay noonu la mu bëggoon wane. Ndiaye. waaw beneen express bi. Ndiaye dafa ñuy luye oto. Mhm. nañuy moytu am na ñaari yu ma la envoyé ko. waaw gis naa ko waaw dafa fekkoon ma nekk ci partenaire yi. waaw nañuy moytu ñu ñuy luye oto te ñuy bàyyi xel bu baax. dafa am benn waay bu luye benn oto. Euh, tur oto bi nag dama ko xamul dégg naa Hyundai xaw ma lan xaw ma Hyundai Elantra la xaw ma. waaw am na oto tudd noonu. Ndiaye waaj day jël oto bi ànd ak ay gaayam di wër di cambriolé. semaine bi cambriole na ay boutique Liberté 5 Liberté 6 cambriole moom daal dakaar gi yëpp cambriole na ko. te dafa luy oto bi mu koy defee. waaw léegi. waa section de recherche ak waa police jëppal nekk ci ay tànkam. yaa ngi ba ñu localiser dem oto bi yoof bi ñu ko localiser yoof gars topp ko ba police ne ko ciix njaay dàqante ba commencé. ci Sénégal gi lii laa lay wax comme fast and furious. yoof ba kastoor waa ji oto bu mu romb rajaxee waa ji nit ku mu romb mbëkk boo xoolee oto bi ni mu mujjee mooy vidéo bi nga ma yónnee ay briques lañ ko mujjee dóor ba oto bi tojotoo bënn pneu yi ndax oto ba mën a taxaw mais jàpp nañ ko jàpp nañ trois trois lañu quatre lañu euh, autant pour moi jàpp nañ trois yi kenn moo des mais quatre yëpp ci oto bi lañ nekkoon waaw di wër di cambriolé am na ci vidéo boo xam ne bi ñuy cambriolé liberté 6 côté immeuble Ferdinand Coly mhm. dañoo ñëw takk gardien bi dugal ci biir oto bi def la ñuy def dem ak gardien bi ba sori sànni ku ci suñu seen yoon. waaw léegi ñun fan la ñu jëm ci ñàkk kaaraange gi am ci réew mi. Ah, baax na fan la ñu jëm ak insécurité bi am ci réew mi. wax nga sañ koo wax. te li ma ci metti mooy dañ leen di jàpp defeere leen juger leen dóor leen ay peine yu ndaw boo waxee ñu ne la way loolu la code pénal bi euh, wax. trois mois ñu génn encore delluwaat ci la ñu nekkoon. maa la wax lii nag. ku ñu rey yaay perte. ku ñu sàcc yaay perte. waaw ku ñu gaañ yaay perte. waaw mais du jàpp nañ leen rek. boo leen rayee droit de l'homme ñoo taxaw. du jàpp nañ waaw loolu moo mënut a ñàkk ci réew ndax bakkan nag daa fort quand même. waa waa déet waaw loolu nag ñooñu jiite réew mi ko yow waaye rey moom kenn digalu ko. kenn njaay kenn digalu kenn rey waaye ki jël jaaseem wala fetalam ñëw jàkkaarloo njaay bëgg koo rey. waaw. njaay boo ko kooku li ci war mooy fexe ba jàpp ko tëj ko. léegi boo ko mënut a jàpp nag ah waaw loolu nag bu fekkee ci rayante la war mu mujjee nag xam nga kii yore otom ku mu romb mbëkk bu bu rayee ay nit ci tali bi moom après nice quoi moom fine danger la moom danger bu rëy la danger bu rëy la ah, baax na ci ñuy luy oto yi ba tey mhm. nañuy bàyyi xel am na aussi benn waaye boo xam dafa luyoon benn oto fële dem garanti benn mbokkam mbokkam de boo xam ni majeur gu sax jël oto ba daw ak moom te la garanti waaw maanaam jege na ko jege jox waaye am nañ turam ak léppam mais le comme oto bi feeñ na mais dañuy alerter encore ba mu ko garanté booy ba dañu porté plainte bi ñu ko porté plant gars yi ne ci wër gi waaj a fay téléphone am ne may ci dëkk bi nekk jël na oto bi yóbbu ko Touba pour jaay ko. bu mu demee amul procuration mu ne borom oto mi ngi Canada léegi dafay dem wuti procuration jot na fa un million bàyyi fa oto bi. Hmm. ñooñu bi ñu ko gisul nag cee dem oto bi police ñu xool ndekete waaj oto bi da koo luy woon ñëw pour jaay ko ba pare dem garanté mbokkam bu ko jege. noonu laa ko bëggee. waa Touba def loolu. maa ku am lu la jaaxal demal déclarer ko police wala gendarmerie. mi ngi noonu nag. parce que gars yi jubatuñu léegi. te ke te kam garanti. waaw yaayam maanaam xale bi ñu garanti yaayam moo yore waa ji yor jabaram. waaw ah, léegi lu tax booy bi nangul moom it di porter garant. non non comme jege na ko nii rek xëy na. Eh, garaawul quoi passe chaque jour ma wax la ko. ki nga wóolu moo lay lor. maa ko wax de. Sénégal koo dénk sa kaaf mu jur say dung <laughs> suqi amul sax ma dem te ñëw. da leen di même boo demee aéroport daje fa ak sa frère mu ne la yóbbaaleel ma lii wala nga dem ba aéroport sa jabar dab la ne la yóbbaaleel ma lii. Mhm. bañal amaana moom mi la koy jox sax xamul la ca nekk. ab mhm. xaritam xaritama ko jox mu jox la ko. nga yóbbu ko lor sa bopp nañuy nañuy gis nga buñ dul buñ ci dul boole ak ñàkk kersa. Mhm. di dëkkee masla léegi ñu maasale lañu nit ñi jombatuñoo def dara. def naa ko fi def naa ko fii am ku ne ci kër gi de bi ñuy jógee France mu ne ma ñaata boos nga ba ko benn mu yóbbaale ma benn man ko yoo xanaa déggoo ma Mohamed Ndiaye du merci beaucoup xalaatu ma ko sax déggoo ma la sa jabar bu la dabee aéroport moom kay loo yóbbu ci bagage yóbbaale ko sa kër waaye sa jabar bu la dabee aéroport ne la yóbbaaleel ma lii bañal xam nga jabar moom kenn gën la koo jege maa la ko wax fuñ jëm Ndiaye des na beneen espèce bu ndaw erreur de frappe yu nekk ci diplôme yow tey sa yaram tàng. waa noonu Ndiaye dama ministère de la santé ku leen jege. Hmm. parce que dafa am ñoo xamante ni dañuy def formation santé am diplôme d' état léegi nag seen diplôme yi buñ ciy def par exemple euh, Matar wala Maktar. Hmm. comme tey sama kàllaante bu fekkee ne Maktar moo ci nekk nga def ci diplôme bi Matar. Hmm. yaa ngi dégg. erreur boobu noonu daf leen di topp. fi ne am na koo xamante ne ba léegi nii mi ngi jaabante ministère de la santé depuis ans pour ñu changer ko mais mënut nekk. loolu garaawul am na koo xamante ne ji bi mu génnee àdduna ak léegi yàgg na. bàyyi fi kër goo xamante ne ji mënuñu koo jaay ndax xam nga lu tax. moom sant ba jàllo la. ci doom yi am na ñoo xam ne ba ñuy bind jàllo benn L lañ ci def. ñeneen ñi ñaari L. léegi nag ndax ñi yor benn ell la waaju jur wala ndax ñi yor ñaari ell la waa ji jur administrativement parlant kër gaa ngay tege ba léegi. looloo compliqué nag. xam nga yaa ngi may affaire wu diplôme santé ak seen. waaw même yi sax bari na ci ñoo xamante ne ji mais je pense que am na pexe pour corriger ko. mais am na pexe mais Ndiaye gars yi da ngay jaabante ba sonn dem bureau courrier déposé ba déwén du du du ñu kii te loolu dina war a jaa waru jafe nag. Hmm. waru jafe déedéet waaye Sénégal fii day. di fi gën a jafe kayit ci la bokk. an eh lente administratif ngay wax. Uh-huh. Ndiaye suñu paa lañuy la ñuy dellu. paa bi woon démb. waaw paa bi nga xam ne déjà fi ñuy wax ak moom yàlla sunu borom moom na ko. Uh-huh. dafa faatu. mu doon dund situation bu compliquée boo xamante ne ji xale bu jigéen bu mu takkoon. Uh-huh. moo ko ko teg. paa bi laata muy faatu enregistré na boppam. ba fi bàyyi fi. wax li muy dund. ak li ko faat. fu ñu yemoon démb. ñu ngi yemoon ci bi mu amee problème ak ndaw si wax ko ne ko mënutul nekk rakam bi. na génn waaw ndaw si gàddu bagage yëpp yóbbu. roñ kër gi. waaw ba ba ba daj ji prise courant yi. salle de bain yi chaise anglaise la démonté. foofu lañ yemoon. waaw ñu yeggale déglu. moom ci boppam mu sukk fii ñaanu ma jégalu ma kon yëpp commencé génn fii mënoon naa koo rey mais ma xam ne kii bu ma ko yoon dana dal sama kaw sa liggéey jàmbur laa yor fële contrat sama contrat daal di jeex ma toog fi nekk ci kaso bi sama njaboot gi kenn dootu leen mën a tee yor ma bàyyi ko mu dem waa ji ma koy bàyyi mu dem la kon dama ne nag ma jégal de ndax moom mi woon ne moom dafa am jëkkër daf ne dafa nekk fii rek yorate xale yi ma ne ko ah bon mun ne am waaw ma ne loolu dëgg la yow mu ne teg ma ne ko uy ndax li nga ko wax dëgg la mu ne teg ma ne ko yow kon amoo dëgg la mu ne teg ma bàyyi mu jàll ci suba ga la ko weer a naa koo sàngu tuuti ndax doom la ko weer sama bi ma ñibbisee fii trois jours laa fi toog quatrième jour bi ma mer mer ma métti ne dama ko jëli sama yaay fukk sama oomi fii di ma ñaan nag am na maa la jur sa yàgg na laa yàq ala ju mel nii parce que Demba Ndiaye la détourné sa compte moom maamam jël loolu yëpp yéena ma ko tegoon mais boo la ma bàyyi woon sama xaalis dina génn sa moom ci guddi moo ma pëkk pëkkal ba ma jóg toog mu ne ma kaay ma wax xaalis bu fa mu dugg expliqué ma lépp lañ ca def ba expliqué ma sëriñ bañ demoon doon fa yóbbu sama tur di ma xaate sama waajur wax na rek naa bàyyi lal boobu noonu keroog bu mu ñibbi si waatee fii laay topp problème lal bi di topp problème lal bi ba mujj xaw ma ci dara ma dem ñibbi voyage boobu yor woon ci ci jëndaat ay lalak ay ventilo ay télévision ay loket ay poignée ñu kenn xamul laa ko jënd ba sama xaalis jeex tàkk vraiment la baal année la ci man ba ma ñibbisee xamul def lal bi mën ah, a ko un a soixante quinze mille francs CFA

wàcc ci digg kër gi dama ñëwee moroomu jéegam yëpp ñu ngi toog ci buntu kër daan ay ataaya waaye sama jabaru rak moo tëb ba maa baare ndax xam na ne kër gi action bi ma dawal sama xel ànd ak teg ak tey mu ne tëll ci buntu intratu bi fi taxaw ci buntu bi buru bu bëtt laa fekk ci biir kër gi sama doom bu jigéen bi fi mu xam ne moo pon wacc say doom ci saal bii di fanaanoog ay góor fii ci biir kër gi sa wallaahi asim lii ma la wax lépp dëgg la paa bii ma abaloon kër gi ndax ñoom seen kër dafa nangu woon seen ndox ma abal leen ci kaw paa boobu nee na ma gannaaw bi ma ko wàccee saa bu ma xëyee fii fii la góor di romb ab militaire fii lay génne ci mu ubbil ko mu dem ñibbi def na ko ay yoon ba ma bëgg a attaqué moo ko defee dama koy doon gannaaw dem na santal yàlla ma ne ko alhamdulilah rabil alamin bi loolu loolu yëpp amee bi ma ne tëll ci biir ci bunt bi dégg fi buru bu métti sama doom bu jigéen moom ma njëkk a fii ma ne ko reer nga ba pare mu ne ma noonu reeragul li may wax ak xale bi yëpp maa ngi dégg bul ma ko waa baax na mu déggee wax ji moom mu ne bërit ubbi bunt bi bëgg maa ma ne ko bul ma laal bi mu arrière ma dugg ci biir waa ji ne bërit ci lal bi daw dugg ci salle de bain laa ko bunt salle de bain ma ne ko dee sama waay kaay mu ñëw ma ne ko jarul daw moom mii xamoon na ne bukki wiiri wiiri jaari jaari wóoroon ko ne gis ne na ñëw ndax doon naa tëdd ba guddi ñaan ci yàlla subhaanahu wa taala yàlla ma yàlla atteeg moom ma am lu lee ci ma ci yebal dégg nga Ndiaye. cest à pour pour nit ñi comprendre mooy ni c'est la fois paa bi lu mel ni di ko dal maanaam ndaw si dem yóbbu ay bagages yooyu noonu mais xëy na bii nag mooy la guddutoo ndax lal boo jëndee un million et mu jël ko jaay ko moroomu jigéenam à soixante quinze mille loolu nag bu doon mën damay siisu. waral jaay ki sax. mooy ba mu roñee yi. maanaam di ko bazarder daal. waaw. léegi nag paa bi comme ni ñu ko doon dëkk ci ay noppam naan ko soxna si nàngam mm-hmm. am na ko fii dugg guddi am na ko fii génn fajar te moom gisagu ko moom dafa bàyyi ba tega ci boppam bëtam moom comme maîtrise de waaw moom dox na ba tega ci boppam bëtam moom te femme bi bi mu koy def kër paa bi la ko doon defe këram ñu yeggale ci confidence paa bi dama moom ci boppam mu sukk fi ñaanuma jéggalu ma kon yëpp commencé génn fii mënoon naa koo rey mais ma xam ne kii bu ma ko yoon dana dal sama kaw te liggéeyu jàmbur laa yor fële contrat sama contrat day daal di jeex ma toog fi nekk ci kaso bi sama njaboot gi kenn dootu leen mën a tee yor ma bàyyi ko mu dem waa ma koy bàyyi mu dem la kon dama ne nag ma jéggal de ndax moom mi xamulu woon ne moom dafa am jëkkër daf ne dafa nekk fii rek yor xale yi ko ah mun am waaw ma ne ko loolu dëgg la yow mun a teg ma ne ko uy ma ko la mun a teg ma ne ko a teg ma suba la ko weer naroon naa koo sàngu tuuti ndax doom la ko weer sama rakk jabaram mi ngi nii suñu kër yee jàkkaarloo moom la woo ci suba di ko mën a mu ko ah mu ne ko man ngay weer lu tax nga dem di woo saali boobu naan ko góor a ngi fii ci kër gi ba mu jël taxi rekk fi góor subhanallah kooku daal di mer te suba mu porte plainte ko police moo ko sama rakk bu góor ñu toog neuf bi ci bopp moo yëkkat téléphone am oo ko yow ko gisee le ba ko ah mu ne ko da ngaa am fii fii tey am puntamento ak ñun rendez-vous lu tax ñëwoo mu man du ma ñëw léegi gisuma convocation du ma ñëw kooku ne ko voilà gannaaw doo ñëw léegi man maa la woo sama téléphone ne la fi midi pire fekk mu lànk du ñëw midi une ba deux heures mooy moo xam gars yi doo ko yebal conva ñu dem Ndorong jëli ko andi takk ko andi ba mu ñëwee rakkam bu góor bi yëre kër ga léegi ñëw na keroog ca waxtaan woowu ak rakk doomu ak beneen rakkam bu góor li ci nekk def ci ay dugub nii amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen ba ci borom jakartaay ñëpp naa naam ak raa santal yàlla kër gi mu def ko réseau jigéen ñi te seen jëkkër yëpp ci la ñuy fréquenté jigéen ñi amul jëkkër yëpp nekk ci àll bi taxawaa fii ba Dakar fii bi xar yi daw ñi lekk seen i yàpp ñu neex ci kër ba mu ba wax loolu ba pare ba nga xam ne yeewu naa ko ba ci suba dama oo sama grand ne ko seetal ma bunt yi bu subaa dinaa yónne xale foofu mu saaseel ma selleri yi ndax mën na faa def leneen lu dul lool sama grand bi ma fii amul dara luñ fi war a mën a tëj vidéo yaa ngi ni ak na dinaa la ko yónnee daa gis bunt buntu armignon yi buntu volontaire yi cadre yi douche bi boobu sama meuble bi télé baag lépp mu jël yoon yow buñ la bàyyee nga dem li nga waroon a mooy sa lal say toggukaay ma ne président taxawal foofu mu taxaw fa ma ne ko mu ngi nii amut lal mën mi ngi la mu noppi mu xam ne man mi wax naa mu ne ko dëggal léegi jël jëli mu doon daal ma toog ajjuma samedi dimanche altine talaata àllarba ndax àllarba ak àjjuma président seen liggéey ma demaat fa mu ne ma que indi na bagage yi ma ne ko bagage ma ñemewu yëkkati na ma jox ma numéro ma mu oo ko jotu mu dem ci jàllo secrétariat oo ko jàllo composé fois trois fois doog jot dem ci président ne ko président ne ana bagage yi dama ne woon na nga man damaa amul fu ma ko def ak lu maa Pamoro Ndiaye mi nga taxaw mu ne ma dama nga jëli bagage insisté naa ndax man naa faa dem mu a ménager man laal ko yoon dal sama loxo sa man waru moon a sax di jëli bagage moom ñoo waroon yeewal ñu dem jëli bagage ndax man bu ma fa demee erreur mën na ma faa dal mu wax ma lu ma naqare comme la ma sóoraale woon a boobaa bu ma xulwaale yoon daan sama dégg nga Ndiaye fàttali ñuy déglu ne waaw ñuy dégg moom faatu na voilà lii lu wax bàyyi fi la problème bu mu dund diggam ak jabaram. Mhm. ba ca la doxee ñàkk bakkanam. ñàkk bakkanam ñu yeggale. léegi léegi mhm. njaay mhm. yaa ngi dégg muy wax ay waxu plainte. bi loolu xew bi mu ko bettee ak góor ndaw si ci boppam moo dem attaqué sëru paa bi ne ko yaa ma boole que ni góor daf fii ñëw. effectivement waaw sër bi dem porté ko plainte. paa bi dem naa ak moom tribunal. ba jox nañ ko ndigal pour mu jëlee ay bagaasam. Hmm. maanaam yenn ci bagage yi fa desoon léegi nag paa bi nanguwul dem yóbbu am na ñu mu yabal ñooñ am na yenn bagage yu ñu jëli mais ci fin bi nag fii nii paa bi dafay expliquer Ndiaye yi bëri yu ndaw si nekkee woon ci biir kër gi dañ ko ko doon wax par rapport ak ñoo xam ne dafa leen aaroon kër gi par rapport ak facture courant yi par rapport ak facture ndox yi ñu ñëw buddi compteur paa bi buddi compteur ndox ma dàq ay doomam école lépp xew na xew na fa te paa bi yëgul woon bi nag fi mu toll day ñaan ay doomam déglu

naa fële Italie ñëw ñu oo bàyyi mun naa ma ko demal Sénégal nga laajal ma lan moo tax ñu buddi sa parce que c'est pas normal ndaka moom moo ko mosee jox facture bu waree fay vingt mille dix mille lay fay bokk la ca des wala mu joxe cinq mille li lay naan jox ko nangam naan ko waa Sénégal lañ ji ñoo ko xam ne ndax ñoo ko wax baabi ne nañ ko ndaw si li muy def baaxul ma ne Paa Modou mun naa ma ma cent xaw ma quatre-vingt mille xaw ma ju teg maa taxaw fa ma taxaw jël sama carte banque ma génne fa xaalis yónnee ko fay contrôle ba mais teewul contrôle bi ñëw fekk maa ngi yoo xam ne nii bu ma ñëwee bu guddee mu ci suturo ba ma ñibbi jee yow li ma lay wax nii un mois laa fa toog ñu ñëw buddi sama compteur ndox mais yi ma abaloon kër gi dama leen abaloon rek li sabili laa ma leen courant laaju ma leen ndox dëkk rek laa leen laaj sañ may ma jàmm may sama njaboot jàmm ay dëkkandoor la ñi seen kër gi ni taqalaan doo man nekk na ci kër courant mu demee di ko joxee Paa mu lànk na du ko jox man tam ma siisu na ko kon ko sama yaay fii la nekkoon ma jëndal ko lal bu baax tegal ko da ko naan ràpp tëj ko maire bi feebar bay bëgg dee mu wàcc fi maire bi nekk ci biir bi taxawaalu ba quatre heures matin bu ñëw Jakarta lay sol wala ay robam yu bon ba maire bi sama grande sœur ñoo xam ne li nekkatu yaa yéenwul maana ndax soxna si mën na fee ci diggante bi ñu jël ko yóbbu ko kër ma kenn waxuma ko maa fa toog ba sama a ah a grande sœur bi mu ne ma li tax ñëw ko jël si woon ko du yendal guddi du yendal bëccëg sa soxna si dafa feebar bu kenn amul ko ko taxaw ba soxna si dañuy génne àdduna foofu la gaañu sama kër gi yëpp dañ koo tas dañ koo toj dañ koo toj di fi suul ay gàllaaj fu ma dis karaw ñu rawut ak moom rek ma toj di fa génne yoo xam ne nii maara day taali wala la sin danaa la yónnee wéti yo nga xool ni mu sabootee kër gi ak ni mu doon karo yi di fa def seen affaire këram yu bon yooyu noonu quoi bi mooy troisième fois sama yaay gaañu na sama mag bu góor ba ko doon demandé gaañu na damaa bëgg mu arrêté mu delloo ma sama alal sa ñu jéem a fexe mu delloo ma samay doom nañ ma dimbali ngir yàlla taxul sama mu ñëwee ba léegi sax xale yi dimbali ci ne ñu ngi fi dusu ko ma sax doon fi doom récupéré ma dee ëllëg a laaj noo yore woon njaboot bi quoi nañ ma dimbali ngir yàlla ak yonente bi quoi def naa fi deux mois ne sama njaboot bi gisuma leen yàlla ko yàlla yërëm. amiin amiin li mën a wax de mooy. doy na waar paa bi dafa def confidence. Mhm. mais aussi genre testament laa mën tuddee. surtout mhm. jëmale ci ay doomam. benn bi des mooy moom paa bi waxul ci affaire kër gi mais ay mbokkam am na ñu ma xamal ne paa bi bi mu feebaree ba ñu woowee ndaw si ne ko sax borom ko daa feebar këyitu kër gi lañ la ko laajte. paa bi wala ndaw si. ndaw si ci boppam. Hmm. ndaxte paa bi këyitu këram dafa am benn imaam bu mu ko doon dénk ca koñ ba. yenn kiiwam yi bëri moom la koy dénk ndaw si moo leen carrément paa bi mi ngi dénk këyitu kër gi diw bi ñu robee paa bi même pas une semaine ci la yeble di wax ay waxum ñiiraas. moom femme bi ba tey moom femme bi paa bi nag dénkaane na boppam dénkaane ay njabootam. Hmm. ndax ay mbokkam jël responsabilité xam nga yaa ngi yaa ngi wax yaa ngi wax démb ne liggéey yi musul mm-hmm. yi ay perkaal ak ay yu maanaam yu yu doy waar man dama jàpp ni loolu musul yi noonu am na lu ko si topp ci yàlla paas fu ñu dem ñun leen korte lañ ko sànni korte lañ ko sànni ba subaak jàmm ba ni muy génn àdduna xalaas jeex na ba subaak jàmm paas 77 150 17 17 waaw mooy loolu mooy numéro bi gars yi di jokkoo ak yow numéro xalaas waaw lii doy na waar torop waay ñépp lay